thank you jërëjëf mbokku téléspectateur yi seetaan Bantamba TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte ak contentement baax baax jàkkaarowaat ak yéen ci biir Bantamba TV une télé une vision mbokk yi saa ne ñuy bëggalante ak yéen ci wàllu làmb bëri na ay làmb yoo xamante ni gëjoon ngeen ko seetaan waaye saa bu ngeen jàppee Bantamba TV da ngeen koy am muy ci YouTube bi muy ci canal bi muy ci TNT bi lépp ñu leen koy jox ngir bëggalante ak yéen ci wàllu làmb mbokk yi tey nag. seen émission bi nga xamante nii moom mooy yenn mbër egsi na yenn mbër di émission bi nga xamante ni day dem ci mbër yi jàkkaarloog ñoom wax ak seen waa wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy am di jàmm yi ñu xool ki nga xamante ni mooy seen mbër nan lay nekkee ak ñoom waaye tamit seen mbër nan lay dundee ak ñoom tey ñu tànn benn xale boo xamante ni ndaanaan la ci wàllu làmb tey ñu ngi fii yoof yoof noo ko wax taw ki nga xamante ni nii moom mooy Malick mu jabu yoof ah ay ndaanaan yu bëri yoo xamante ne nii ñu ngi yoof ay caatu yoof ñëpp ci biir waaye tey cantaa bu yoof tey moom lañu ñu seet si cantaa bu yoof moom ngeen gis noonu cantaa bu yoof muy xale boo xamante ni mi ngi bay waaram ci wàllu làmm tey ñu seet ko xool cantaa nan lay dundee ak waa këram ak waa koñam ak fameem ñu xool cantaa tey nan lay ñëwee mbokk yi mi ngi noonu lex moo nekk ci caméra bi waaye ma ci micro bi ñu bëgg leen teg yéen lex jox ko madame Mbaz mu daal di koy jox mbokk yi ñu bëggalante yéen ci wàllu làmb jox ko ko. mbokk yi ba léegi gis ngeen li nga xamante ne nii moom moo xew fii ci yoof nee naa la cantaa la ñu seet si cantaa bu yoof ba léegi lak si dox ànd ak man ñu dem jëli cantaa bu yoof nañ dem ba léegi bégee gis nga waa yoof yi gis nga leen waa yoof yaa ngi nii dañuy toog di waxtaan yaa ma gën a xam gis nga ko mais ñu ngi ko cantaa maa ngi gis benn gaan bu toog nii ah xam naa daal liggéey ba wàcc wala nu mu demee noonu doom nday maa ngi lay nuyu non ñu ngi ci waaru ñu ngi lay ñu ngi fay ni ba am nga jàmm waaw naa yees alhamdulilah fii mooy koñu kañ fii mooy koñ canta canta bu yoof waaw bu yoof waaw mais gars léegi dañoo bokk ci làmb non Yoff kenn mun leen dindi ci làmb looy wax ni waaw. yéen mbër ngeen fi ah? fii am nañ fi canta am nañ fi yeneen booy xam rek. gars yi ñu ngi ci biir ñoom. loolu demee. mais canta ban côté la dëkk. nii. nii. fii yëpp canta la ñuy topp mi ngi noonu. eh kon canta ndeke ah mooy loolu ah eh, eh, eh, booy kaay leen bu leen demee ci lu ngeen ne. ba nga jàmm. taw feex kay. yàlla nu canta ñun supporter yi canta lañ. yow sang bi waaw. Ah. billaahi. kan mooy canta. mais canta benn xale la rek nekk si arène bi di ko yëngal nekk champion boo xam ne gars yi bàyyi commencé guñ ko bàyyi xel mais bokk na si làmb ji. mu ngi si yoon mu ngi si yoon bi parce que boo xoolee li mu def rek ni mu def Canabasse ak ay Baye Tafatine ak ay Eumeu Sène Junior ah. nga xam ni mooy loolu noonu champion la. billaahi léegi dañuy dem nga woon ñu canta. noonu la demee ñu. ban côté la. côté bii la. Eh, côté bii la waaye na ngeen def yéen a ngi ci jàmm. bu yoof fii fii fii mooy fii mooy au calme au calme yàgg na waaw moo taxit calme na calme na gi nga ma yóbbi laay naajo bi rek lañuy ñuy topp kese waaw déggal yoonu mais gars yi dañoo sawar de dañoo ñëw ànd ak gars yi gars yi du ñu yóbbu gaale cantaa waaw ruq yi mbër mu fi dugg dangay xaar eh bënn bi nga ni. nii ngay gis nii nii. fi mbër bi di jaar. di dem fan di dem ay fulum ay ay ay Tiwaawan fépp foo xalaat rek ay Njaasaan fépp. Ah. billaay wallaay. man fii dama fi commencé ragal sax man. fii wéet na de. oh. laay laay laay laay Maxtaar laay Seydina laay Issa laay Barke Baay laay kii moo ne woon mën a démb waaye mën a tey moom moo weexoon ca Makka daal di ñuul fii ca Yoof moo ko waxoon de barke Serigne Bamba sëtam sëtam la de mooy wax ak yéen seet naa sa laay barke Baye laay mais maa ngi yof de dom de maa ngi lay. waaw ñu jaar ziar bu baax. ba am nga jàmm. waaw sant bu baax lépp jàmm. fi koñ euh, koñu canta bu yof. kan mooy canta. canta mooy mbër mi nga xamante ne nii waaw moo def euh, làmb ju rafet ji paase nii. Hmm. waaw bëggal ñu ñun ñëpp. gaa ne tapet. tapet. waaw non gars yi nañu xool vidéo yi. nañu xool vidéo yi. ñu xool ko. yox ko jëli ko rek moom. canta laay wëri. ah waaw. ci loone coor la. am nga jàmm. waaw sant yàlla bu wër ah. nii. fii mooy ban koñ. fii mooy au calme. Apex au calme. mais ñëw dugg ci dugg ci koñ bi dajew ma ak kenn. dafa dafa dafa wét koñu koñu moo tax ngeen tuddee ko au calme. au calme waaw. heure bii ñëpp dañuy tëdd seen kër yi di nelaw. nga xam dallu waaw mooy loolu. Ah. waaw fan fële si kanam. xaar ma xool loolu nee na fële ci kanam ñu dem. lex añagoo de ah? mais loolu du dara dinaa la gérer <laughs> ndom de maa ngi lay. maa ngi fay. ci maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi baax maa ngi bu baax waaw. da ngaa fee. affaire yaa ngi rek. dama dégg Canta fii la dëkk. waaw fii la dëkk. Hmm. waaw ñu a wax ci Canta. ah moom mbër mu baax la moom. Hmm. bokk ak yeneen bëri billaay. Hmm. te moom mun naa bëri moom. bu bëree rek ñu xam ne mbër bëri na. buy bëree nu ngeen di def. yëngal koñ bi ba mu yëngu bu ñu demee stade gën kaa yëngal nag billaay wallaay dégg nga loolu lex nee day yëngal fii bu demee stade yëngal ko dom day waa dom day temps yi foo lii maa si wet gi de mais nu mu demee noonu waaw noonu lex xaaral toog waaye lex ah comme noonu rek mais nu mu demee a gis waaw ñooy fi rek comme gars rek di daw rek mbëri moom xam lu yomb la ñuy wër kan lañ la proposé te lamb ji amul lu yomb waaw ñoo waroon wax comme Bada Yandé mais mujjul sotti waaw yee. waaw. mais ba day xeex day bëri. baax na looloo baax. mu gën a <laughs> benn defar laa am ci làmb moo Kang Kang ama daan mais xama làmb ñu moom xama rek gars yi dañuy xama war lu nooy te amul lu nooy. waaw mais di la dalal jaamu. ci yow sama nijaay waaw ci yow. canta mooy loolu. mais mais mais mais ñu mën a wax ci canta. waaw xale bu yaru la comme noonu rek moom moom daa neex a àndal quoi. waaw dafa gëm boppam entrement rek la gëm. doo ko dégg ci yenn yi xam nga doo ko gis ci yenn yi moo rax mu neex a jàppale. neex naa yóbbu làmb. neex naa yóbbu làmb te entraînement rek la gëm te làmb moom. boo amee booy boo xamante ne nii carrément xam nga dafa gëm entraînement xam nga day neex a yóbbu sama nijaay la sama rakk yaay la mooy. lay wax ni kon moom soo xam loolu. mosuma xam loolu. <laughs> Centa. waa mais dem day ci loone yaa ziar. ba am nga jàmm. ah sant bu baax. kenn mooy sa mbër. sama mbër. mais Centa tanta tanta bu au calme bu apex 1 waaw dafa yaru dëkk si koñ bi yaru moo tax ñu ñëpp bëgg ko waaw. nu mu dëkkee fii. nu mu dëkkee fii jàmm rek la ñu sekk ak ñoom moom. loolu waral ngay dawal sa taxaw wax ci liggéeyu ma sax tey moom moo ma ko jaral moo tax ma ga ma topp moto bi pour dem parce que sama mbër la dafa yaru dafa ñëw wane yaru moo tax ñu bëgg ko. ñu jàmm rek. ñu jox la jàmm ñu ànd ak yooyu ak jàmm. ja maa ngi fii rek sant bu am nga jàmm. waa ñu ngi sant bu baax. mais tey dañoo seet si canta lan nga nu mën a wax ci canta. ah canta moom comme ni ko gars yi waxee rek entraîner lekk tëdd. nekku si ay caaxaan nekku si dara. yaa ma gën a xam ba pare am jàmm ak ñëpp yaru yaa gën a xam waaw. su woon jox ko benn mbër kan kan canta. ah, ah canta canta man moom nag ay kii. xam nga ah. Anaconda. ana kan. Anaconda. Anaconda dóor mbër ba mu génn. ah non loolu bokkul ak Canda Canda kenn ko dóor ba mu génn. Ah. Canda ku ko xool xam ne du ku ñuy dóor ba mu génn. lex kon nañ dem ba léegi ñu ànd ak Canda ànd mafia bi des fois doo dégg jékki-jékki nga jékki-jékki dégg moo naan la yox la jëli ko <laughs> kon dañ koy jëli nii lex ñu dem jëli ko. lex papa bu Canda ngi nii papa ci ah, ñu ngi siyaar ñu ngi delloo siyaar. waaw mbir yi sant. waaw ah, dóor muy daanu quoi. mu ngi daanu. da ngeen fi ñëwoon tey quoi. waaw tey ñu ngi nii xam nga seet si. Canta bu Yoff. waaw noonu la demee yoon la yoon la. waaw loo ñu mën a wax ci moom. da dara dama la mën a wax ne sama booy la. waaw te mu ngi góorgóorlu daal. Hmm. Euh, desul lu dul jàppale bi gars yi teg ko loxo wane ko comme yeneen gars yi nu mu demee rek. est-ce que est xam nañ Canta. waaw Yoff xam nañ ko mais si li ma mën a wax dafa xaw a des. ko umpale waaw. ñu ko xaw a dese quoi waaw mais ñu ngi si yoon bi daal yàlla. ñu ko xamee jàppale. waaw. bu ñu ko xamee jàppale ko Lex. Canta bu Yoff ngi noonu mais Canta ci loo ne. maa ngi si jaamu sant yàlla bu baax a baax. am nga jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tey bett naa waa gis nga noonu la demee. ASC bu mag bi quoi la ASC Dantiny APEX ah. bi waaw. di coach si. maa seen lépp laay def <laughs> waaw. mais ci loo maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi ñëw fekk fi mafia bi nii ñu toog wane ni saa su ne ak ñoom yéen a yéen a far. waaw noonu la demee ñun moom on est ensemble ñooy nekk chaque instant waaw. bu sport jotee ñu dem sport après ñu ñëw toogaat waaw. Ah. Ah, bu sport jeexee da ngay toog ak ñoom continuer. dañuy continuer noonu lañ fii au calme quoi. eh au calme waaw. sport bu jotee dañuy dem sport bu sport jeexee ñu ñëw toog teg caan gérer waaw. secret bi lan waaw secret bi de liggéey rek ah. waaw hmm. ah, liggéey rek. dégg Lex nee na liggéey rek liggéey war na góor war na jigéen kon nanu liggéey mbokk yi saa su ne nii rek la ñuy def. ñëw nañ seet si tey Canta ñu def ak moom yenn mbër yenn mbër defe naa ni bari na loo xamante ne ni da ngeen koy seetaan ci biir saa su ne dama koy wax mbër yi respecté leen seen waa koñ ndax yenn mbër day ñëw ci seen koñ di waxtaan ak waa koñ bi xam na laay bañ dem ci mbër waa koñ bi naan fii bu fi awee day yéegal veeru oto bi wala bu fi awee wala daa yëg succès loolu boo ko defee doo dem am na mbër yu bari yoo xamante ne nii loolu dalu leen. moo tax danga nga di dégg waaye nag tey cantaabu yoof moom la ñu seet si ñu dem jëli cantaabu yoof waxtaan ak moom xool carrière bi xool ñan la war a bëreel ñan la mujjee bëreel ñu wax ci loolu daal di ñëwaat lex yàlla nga koy jox. Sidi Diakhaté production combat bu nag bu mag bee ngi noonu si diggu géew bi cantaala bu Morala moo nekk sunu ndeyjoor mi ngi jàkkaarloo ak situation bu sébi da ngay dégg ñaan la situation oblige attention canta situation laa xeex nanu situation daw na jël cantaan nooju ko wuyul li canta ak situation attention canta am na def situation bañ na attention canta kan la ko ñoom ñaar situation a canta ci suuf attention fii ko fii na ko ñoom ñaar taabal ba waaw waaw waaw waaw extraordinaire canta ngi xale baa ngi la ilaha illallah saay xel file waat mu bañ dur ko caxabal ba eh wéru ko jël ba rëy na jël am na de jël bu rëy jël bu rëy waaw moom ma nga ca turbin ba mu ngi noonu tey Thianta la seet si Thianta Thianta maa ngi lay nuyu. Axma ah, maa lay fay bu baax. ginnaaw mu sant yàlla julli seen bi sant sama ñaari waajur di sant waa Yoff li ma nekk nii di sant sama waa dëkk waa Morala surtout waa Fulum di nuyu monde entier képp kuy bëggee Thianta rek maa lay nuyu bu baax. Thianta ah. lan moo ko dugal ci làmb gis nañu Thianta bu jugee Yoff ah Morala ak yeneen dëkk yoo xamante nii dañ lay topp fan lañ la toppee ak lan moo la dugal ci làmb. waa làmb moom li ma si dugal mën naa ne ci sama jarbaat bi quoi. la làmb ah. waaw moo tax ma dugg si làmb ndax daf ma doon yóbbu ma koy teel ay bagage am. noonu la noonu la ma làmb dikkee quoi. fu njëkk a man fu ma njëkk a sama village. sa village waaw laa njëkk a bëree quoi. da nga jékki rek yaram bi laaj rek nga sumee ko wala. non dama doon xool si moom rek. buy bëree dénk ma yenn après si la affaire bi commencé làmb si la ma commencé dugg rek ma gëm ni tey lii war naa laa mën a def après ma nekk ci rek. fan mooy sa village. Fulum. Fulum waaw. moo nekkee fa. moo nekkee côté Poutan boo àggee pour rek boo laajtee oto yi dem Fulum muy foofu. fa ngay waree. waaw chaque instant fa laay waree. waaw mais xam nit moom xam sa cosaan yaa ma gën a xam. Mm-hmm. te kon ko bi ma demee boo léegi foofu laay waree rek moo tax après ñoom ñu taamu foofu may waree foofu di ñëw fii. Mm-hmm. mais kañ nga dugg ci làmb. dugg ci làmb commencé. gaa foofu arène quoi arène fin 2017 bi. ok nga am kan. ma ma bëri situation. situation jour boobu bi critique wul. non non non non non. critique wul non premier combat nga xam ni arène national la. wala wala Iba Mar fan la woon sax. Thiès Thiès Thiès la woon nga xam ne mosoo bëri mu nekk ay korfañ mm. loolu. loolu bi nee la avance bi jot nga ci. Mm. boobu ne la woo de. non non même pas sax xam nga làmb moom bu fekkee da nga koy fowee rek am na yoo xamante ni du la jaaxal eh, te ñun dañoo tër bi làmb bu baax a baax. Hmm. mais sa premier sa premier combat biir géew bi loolu day doy waar. noo def ma problème ndax xam booy buy di mboppat fu nekk di dem mbëppat fu nekk day dem ba mbër du la jaaxal. du la jaaxal ko ndax da ngay bëri bu nekk. da ngay bëre ku am kilos da ngay bëre ku am 90 kilos moo tax la mën a jox rek yow du la du la def problème ndax ñun man sama combat presque est-ce que hmm. Hmm. nga ne ci waar. waaw nekk ci mbapat yi. ok ci lañ ma woo quoi. mais nga jël ko daan. waaw ma jël ko daan waaw. Hmm. bi nga ko daanee noo def. waaw mooy combat boo xam ne tey moo gën a laajee sax carrière bi ndax xam nga tey ma ñëw bëre koo xamante ni mën naa ne sax moo la ëpp doole nga ñëw yóbbu ko top 5. Eh, après. premier combat top 5. waaw top 5 la waaw. man maay borom tam say gars ñoo dul dugal rek. <laughs> lekk si <laughs> waaw sëg làmb ak facette bi may indi. Hmm. Eh, mais nga ñëw sa deuxième combat am kan. am ci Scorpion. Scorpion. Hmm. nga daan ko. non moo ma daan sama deuxième combat laa ah, ñaan. sa deuxième combat nga ñaan. Hmm, mu nekk mu nekk benn benn victoire benn défaite. waaw affaire bi xaw a critique. xaw a critique waaw ndax xam rek peut boobu noonu xale bi xelu xale bi moo fi nekk quoi après mu jug waajaat. ànd ak samay mbokk ba nii tey suñu boroom dogal ma am huit combats yooyu. def huit benn défaite. benn défaite ok combat. maa ngi bëree Canabasse bu Cameroun. ok bu doy waar. waaw combat bu doy waar xam nga combat ñaari xale moom foo jaar day neex quoi. Mhm. te laa daa doon làmb joo xamante ne tey am na foo xamante ni mën nañu faa yóbbu ci làmb. Mhm. te mu tax mu jaraloon ñu tamit ñu ñëw jaayante ko suñu borom may ñu ndam. ak ko daanee. waaw mooy li ma la wax sànq nee naa la man Bantamba kii kii bi top gi dama si am wàll. chaque jour ak nu may daane. mais dafa bëri ñoo xamante ni dañ laa umpale ci bëri. xam nga ci xam cantaa. ñu am na ci ñoo xamante ni dañ laa umpale est-ce que du des fois journée yi ngay bëri wala des fois ah, euh, wala yenn adversaires yi mooy mooy waral loolu. Hmm. waaw mais surtout surtout chaque jour dama koy wax quoi. kon distance su combat yi ñooy xaw a yàgg. xam nga mbëru ndaw moom tey boo seetee làmb kii bëre tey bëre suba la ñuy gën a découvrir koo xamante ne benn combat ngay bëre toog ay weer yu bari. Hmm. boo seetee suñu combat daa xaw a day sorante. Hmm. ndax at bi boo si amee benn combat. say morom du bëri après ñooñu la ñuy gën a kii bàyyi xel quoi. moo tax quoi. waaw ne bi di nga ci bëri ay deux fois. waaw ren moom dama bëgg bëgg rek ay jëm kaw. yàgg nañ la bëri presque trois ans yi nii si ginnaaw boo seetee at bu ne benn yoon laay bëre. Mhm. te xale bi boo bëggee am foo war a jëm. Mhm. saison foo ngay bëri ay ñaari yoon ñett. Mhm. te si loolu lañ bëgg a taxaw ko incha allah rabbi. mais nii nii am na ñu nekk sa xel. waaw am na ñu nekk sama xel quoi. waaw am na nekk sama xel pour bëri ñoom incha allah. ku ci mel ni. tonnerre bu ndakaaru. tonnerre bu ndakaaru tonnerre 2. tonnerre 2 yow jantaa sañ ngaa jël tonnerre 2. moom laa soxla ndax xam nga rek làmb moom boo dul jël risque mënoo mënoo dem. mais tournel xale boobu dafa bëgg naa man loolu laa xam nga man bëreeguma ak sama kii cantaa moom eh. kii moo mën cantaa. Eh. waaw loolu laa bëgg quoi koo xamante dañ naan kii moo mën cantaa. Hmm. Hmm. xam nga bu bëggee na ma may ñu bëri. Hmm. waaw mi ngi mi ngi jàkkaarloo. tonnerre dama lay ñaan si njëkk nga may ma chance ñu bëri. waaw loolu laa bëgg quoi may ma chance ñu bëri. mais à moom. non à moom man xam rek sama morom yi xam lan ëpp ñu ma combat ëpp ñu ma victoire. moo tax mooy loolu mais ku ma làmb booleel si samay morom rek damay bëri. mais à part moom ciblé na ma may chance tonnerre bu Ndakaaru. mais mais moom rek moom rek moom rek nga ciblé fi mu ne. waaw wala Ronaldinho wala. waaw Ronaldinho man yow. booy Dakar. booy Dakar man. waaw. yaa ngi dégg li nga wax non yow Ronaldinho man mooy loolu de mooy li ma la de gën naa soxla naa ñu ko sax gën a tàng boobu. Hmm. mais fu ñu saison bi tëjee ñu ngi koy meññee bu ñu xëyee dem entraîner après ñëw seetaan suñu gars yi. des fois di nga ànd ak ñoom ci foofu waaw bu ko jëree rek dañ koy defar. Hmm. mais saa ñaata séance ngay dóor. bu ma xëyee damay dem matinalu rek waa waaw mais xam naa fi ak semaine bii di kii ma commencé dóor de séances yi ndax xam rek ñun dañoo yónni yaakamte ñu te ñun ñi noppalu waruñu ndax ñun ay mbëru gox lañu ay dëkk-dëkk ñoo ñooñu yaakaar ñooñu yónni tamit. moo tax bu gars yi dee nelaw sax dañ si nekk di liggéey quoi. mais mais nekk mbët nekk biir Yoff te am na ay champion yoo xamante ni ñu ngi biir Yoff sa diggante ak ñoom. waa jàmm ah jàmm laa sekk ak ñëpp laa yéene ñëpp tamit quoi waaw loolu lañ sekk te xam nga nit ki moom boo nekkee si dëkk xam tey ñoom ñu dalal la boo xam am yu bëri yu ñu la xamal rek mënoo sekk ñoom jàmm ji quoi mm, jàmm laa sekk ak mbër yëpp. Mm, waaw waaw xam xama nee naa léegi mbër yi kenn ku ci nekk dinaa ñëw sa koñ wax ak waa koñ ba yow nan nga nekk ak sa waa koñ. waa jàmm jàmm laa seeg ak jox leen cër bi ñu moom nga xam nit ki xamante ne boo amee jour tey duñ nelaw duñ lekk dañuy nekk ci yow mënuñoo def lu dul xam nga wàccee suñ boobu waaye seeg ak ñoom ñëpp jàmm te na loo xamante ni sax boo doxee si mbedd bi laajte canta xam lu bari si ngay gën a xam canta nu dundee ak waat waa ko ñoom jàmm laa seeg ñoom xam nga ak cër bi ak yar bi quoi. ndax ñun waaw ah, lañ mais fi mu ne nii promoteur woowu la di la wax benn komba waa ñu ñu ngi ñuy oo moom wax dëgg fa yàlla mais mooy li may wax rek ñun instant dañ Bamba ku am huit combats sept victoire benn défaite jot na làmb xam la xam nga li ma la wax moo tax nag. mais ak Bantamba ñëpp leen def. waaw noonu la demee moo tax nag ñooñu mooy woo nee naa leen daal bu dee sama morom. dinaa bëre quoi bu dee mag bu ma may chance tamit dina bëre mais nekk fii di bëre ay chaque jour ay espoir non non man tollatuma foofu quoi looloo tax mais wax dëgg yàlla ñu ngi may woo quoi. mais mais ana ay maale ñaa yooyu. ñu ngi biir dëgg ba ñu ngi ñu ngi fi waaw. ñu ngi ñëw entraînement wala. waaw instant nag yi tëj na moom mooy loolu. mais avant muy ñu ngi doon ñëw. waaw dañuy teew hmm. mais Malick ñu ngi dégg ay daa bàyyi yooyu yow en tant que poulain yow looy wax. ah mais ak ak loo koy wax. tey moom bu fekkoon suñu suñu sañ-sañ ah, wala suñu ngëm-ngëm dañ koy naan bul bàyyi mais xam tey moom nit ki moom lu nekk ci moom wala li tax tey mu bëre ba egg fi ne de bàyyi xamuñu mais ñun daal buñ soñoon mu eggali quoi ndax tey moom nekkam làmb si biir làmb day am foo xamante dañuy fa yóbbu ñun waaw ndax tey moom moo ñu mën a yóbbu fenn si làmb bi ndaxte boo seetee muy Pikine foofu dem rek am na champion bu mag mhm. loolu day gérer ba si mbër yu ndaw yi mais boo seetee yoof dafa metti booy ñooy jaayante ay saani pour war a jëm si kaw. xam nga ma la ndax boo seetee ay ay ay magu làmb dafa manqué yoof ay espoir rek moo fi am amee saani tool ni mais ñoom bu ñu fekkoon ñu ngi woon foofu rek après dafa am lu bëri loo xamante ni tey déjugé waaw noonu la demee quoi waaw mais tamit ñu ngi jaayante rek yàlla baax na daal ci kanam rawul bët waaw incha allahu xam xama xool ci sa gars yi ñu xool Canta euh, moom it nan la fi nekkee doom maa ngi lay waaw ñu ngi siyaar ñu lay siyaar bu wér di nuyu gaa yëpp waaw di leen dalal di leen jox seen wàccuwaay waaw di encourager suñu mbër quoi waaw. dégg nga ko nee na ñu ngi koy proposer ay combat mais ci ëpp ñooñu tolloowul ak ñoom wala euh, euh, bëtam dépassé na leen lan ngay wax ci loolu. waaw foofu li ma fay wax mooy di ko fekk si li mu wax rek parce que lu mu wax mooy dëgg parce que booy bu nekk nii di entraîner di def li ko war si làmb am huit combat am benn défaite xam nga ñeneen ñi dañ ko ëpp làmmiñ rek nekk fii di ratatati di wax mais gars yi nañ ko jël ñu bëre waaw daan na fi ñëw taxaw ne leen damaa mën a bëre na ma gars yi jël ñu kii nii mais gars yi nañ confirmer loolu xam nga làmb dafa bëri gars yi fii ne di ut ay raccourci di teggi ay yoon affaire yooyu mais yooyu kiiw nañ jël booy bi mu bëre xam nga may ko sens ñi ko war a may sens may ko sens ñi nga xamante ne bon ñu ngi ci yoonu làmb aussi làmb boole leen nañ ko jël ñu bëre quoi waaw parce que def na ay preuve am quoi amatul leneen loo xamante ne nii gars yi war nañ fi man fi nekk dinaan naan dañ koy prouver loo pour mu doog a bëreeg diw yooyu xam nga te sànq yaa ngi wax digg mais yaa ngi koy laaj si làmb yoof nii mais ñoom ñi bokk na si ñi téye làmb yoof waaw parce que ñu ngi siy def seen i preuve am na jom mu ngi mu ngi koy wane mu ngi entraîné caaxaanul xam nga respecté boppam respecté nit ñi. xam nga lépp loo xamante ne mu ngi fiy xew moom mu ngi ci biir xam nga joxe ko ba mu mat sëkk voilà. lamp la wax ci loolu. waaw noonu la demee ah nekk fi mbër yomb na. waaw yomb na moom ndax booy moom surtout suñu biir koñ bi. waaw booy moom naaj quoi ñoom moom comme nañ ma jàppee noonu lañ jàppee canta waaw bu ñu xewlee moom ñoom ñëpp ay jug waaw. mais côté jàppale. jàppale bi waaw xaw na des tuuti. mais làmb moo demee noonu affaire moom ñëpp mën a ñëw mënuñoo ñëwandoo ñu dañuy ñëw ñuy xaar beneen ñëw keneen ñëw keneen ñëw keneen keneen ñëw làmb moo demee noonu waaw mais. moom mii tey jii ba mu la koy dénk lan lay waaw mu nekkaat ci mu nekk mu gën nekkaat ci li mu nekk rek moom moom neex naa jàppale daal comme ni ma la ko waxee rek. non mais da ngay non xam nga rek dañuy denc affaire rek ba. lamb fi loo fi denc bees yoo xam ne buñ ko kiiyee yi mooy loolu. buñ ko waaw léegi defal ancien yi waxal ancien yi. non ancien yi mooy loolu tatam ratat ratatat ratatakinta rakitarkinta ratatakinta cër cër cër canta kese wër na alxuraan eh, amul leneen kay. <laughs> gërëm bu baax amagoo combat non bi nii amaguma combat quoi. koo man ngal ko waaw Iba Maar non non kii la dungal ko kii. waaw dafa ma daan moo tax ma fàtte ka <laughs> ah eh, yow yow boo ko daanee ci nga ko war a fàtte ka sax. non man moom ñi ma daan yëpp mun naa leen wax mais ñi daan moom. <laughs> ah noonu la demee nag <laughs> waaw waaw. parce que di sant waa Morola yëpp. waaw ñun moom bu ñu teewee fii rek xam nga Morola bee ñu ñor quoi. di sant cantaa bu baax ba borom bu baax la kii tamit champion la Lam Fall champion tëgg ngi nii maa xam dañuy dugg si àll bi amul lu ñu dul def si biir àll bi eh, mais la cantaa nag tax na tamit aussi mbëru Yoff maa leen commencé di suivre mhm. caa caatu Yoff ak yëpp xam nga mooy loolu ay doom dañ lañ ko mën nañ ñoo ñoo dépendre si làmba ji quoi waaw di ko ñaanal yàlla rek. cantaa ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw di nuyuwaat rek ah ñëpp eh, di di di nuyu sama waa dëkk kon ni ma ko waxee 18 villages yëpp. di nuyu na laa koy waxee di nuyu waa Yoff bi ma nekk nii di nuyu AC APEX bi bu baax. yaa ngi reer seen reer yi rek. waaw waaw waaw noonu la demee nag ah. <laughs> du loolu sax rek dama bëgg a sant sama waa dëkk yi. fii ay liste fi de. xam nga yow laamu du combat fii nga tàggatoo ñu tëj. bi laamu bi laamu jeexagul xam nga kenn ñëw kenn ñëw fi quoi te bu seet bi ma toogee plateau yàggu ma te dafa am ñoom dañ jàpp si bis bi. xam nga li mu la wax. dañoo jàppoon ci bis. waaw dañu si bis bi <laughs> te tey jii rek muy loolu. Mm. waaw di sant di sant 18 village Morala yëpp. 18 yëpp di 18 yëpp ndax dañ siy jàpp surtout sama waa dëkk waa sant bu baax a baax di sant Yves si jàpp na si ak Daniel Mbaye di sant Antoine Antoine Antoine Mbengue bu baax a baax di sant waa toolu kii bi baasum bi dañ siy jàpp bu baax a baax di sant sama tonto Mourou Fadou kooku sama papa la. wallaay lancim combat bi da si taxaw ba sama papa Mor Fatou sama papa tamit waaw dañ jàpp si affaire yi bu baax a baax góor a bu fu jàpp na si bu baax a baax AC bi jàpp nañ si bu baax a baax ADF di sant sama mag Matar Yakouma combat bi da si taxaw bu baax a baax a baax sax di sant tamit sama toos Mbaye Diop maa ngi sant bu baax di sant waa Yoff yi monsieur le maire Seydina gis naa taxaw bi. ku si mel nii gars yi ay DG gis nañ ñu ci au calme bi jàpp nañ si bu baax di sant Modou Lo champion Modou Xarañ Lo jàpp na si combat bu baax a baax a baax waaw di sant tamit mafia au calme bi yëpp di sant waa AC Apix bi waaw AC Apix moo nekk nii ko jëlal ma AC bi waaw di leen sant bu baax baax gis naa taxaw bu baax a di sant sama toos Matar Matar Matar Matar Lo kooku moom depuis mooy bërëm ba day jàpp samay affaire wallahi lazim di sant Oustaz Omar fay kii day daf may ñaanal ba pare damay dem foofu mu ñaanal ba pare yéeg xaalisam di ma may. ñaanal ñaagal. waaw daf may ñaanal ba pare ñaagal ma. Oustaz Omar Faye ak waa Mbambi loolu yëpp saa bari ñi aw ma fayam Khalil Mara Cheikh borom Casamance maa ngi koy sant bu baax di sant waa waa Njar yi sang lay sant bu baax a baax waa Njar yi di sant sama sama si si Lahat maa ngi koy sant bu baax ak sëriñ Jili di sant bu baax a baax. di sant waa waa ginaaraay waa gétto yi ma fi ak bi yëpp maa leen sant ba umu si mag ji ak Baye Mbay waaw ak Aji di sant Meretu Thiam mag la ñu bokk ndey mais moo jël alalam di sant waa koñ bi yëpp tamit fan si club Canta aw ma seen fay bi ñi togg añi village bu ma amee combat fajar la ñu ñëw gàlle maa ngi di sant bu baax di sant Dior Mbengue tamit sama tons tous bu Canta waaw sa sa élément. sama copain <laughs> toujours Thianta ah, waaw. mais moom maanaam. moom daan na doon ñëw sax mais daan demoon village quoi di sant marché marché Thiaroye. walaay lancé bi dama fa dem Bamba bii passé. billaay billaay dama am kersa dañuy jël seen xaalis di ma jox. di jël ay yére barki alxuraanu karim xam ni carrément man Gétto dama fa am wàll ndax fa laa yaroo di la sant Ahmad di sant cameraman di sant. kontaan nañu waaw maa ngi sant ñëpp. waaw di sant AC bi nekk AC APEX bi. waaw maa ngi sant gis naa jàpp. nañu AC bi ñor na la. bu baax sax. Eh, mi ngi noonu waaye mel ni AC ñoom lekk rek ñu leen di jàpp di leen dóor rek. AC bi waaye tamit AC Jokko maa ngi leen di nuyu bu ginnaaw raay ak manko mango ji ah déggoo ñëpp rek maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñëpp waaye maa ngi nuyu tamit. Modou Fall borom pono yi Modou Fall maa ngi koy nuyu bu baax nekk ca ginnaaw raay nga xamante ni moom ah xaritu xaritu ñoom ñoom Liliya la xaritu ñoom mun Muntaga xaritu ñoom Bébé uso ñoo ñëpp ay xaritam lañ maa ngi leen di jaajëfal di la jaajëfal ci ci teewaay bi nii di jaajëfal sa gaa yëpp mbokk yi nii rek lay demee ak saa su ne la Bantamba TV une télé une vision ñu bëggalante ak yéen kontaan ñu tey lex laa àndaloon. Lex maa ngi lay kontaane bu baax a baax di ñaanal yàlla yal na yàlla wéral loxo bi bu baax a baax kontaan nañu jërëjëf.